bismillahi irrahmani irrahim wasala allahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi alazim alxadiisu saadisa ashar fukk ak juróom benneelu xadiis nee na an abi hurayrata jëlee nañ ci suñu sang abu hurayrata radiyallahu anhu yal na ko yàlla gërëm mu ne anna rajulan waay qaala dafa wax linnabi ñeel suñu sang yonantu sallallahu alayhi wa awsini dénk qaala yonentu sallallahu alayhi wa sallam tontu ko hmm. laa taxdab hmm. bul mer hmm. faradada mu baamtu question yi question bi miraaran ay yoon qaala yonentu continue di ko tontu benn baat laa taxdab bul mer rawaahu al-Buxaari yo hadis ji Buxaari solo na ko ñu ngi ci saxiixam ci kitaabul adab mm-hmm. ci buntab alxadaru min alxadabi mm-hmm. seydna abu hurayra tuddul ji mm-hmm. dana dikk ci xadis yu bëri ñu ne benn waay nee na yonantu sallallahu alayhi wa daal di lëmal turu kooku léeg-léeg boroom lijjanti ba xam kan la léeg-léeg duñ ko xam waaye li gën a am solo mooy li xadis ji làmboo waaye xam tudd jarul yenn coono yi wate alxuraan da ngay gis muy jëfandikoo loolu lu bari rajulun min aali yaktumu imaanahu hmm. boo demee ci mufassiroon yi hmm. dañ la indil téeméeri tur ak benn ñii hmm. nee nañ ñi la tudd ñii nee nañ ñi la tudd waaw waaye bu fekkoon ne xam tur wa jar na ko yàlla tudd ko abdan min ibadina ñii nee nañ xadir la tudd xadir la tudd alayhi salaam ñii nee nañ waaw yàlla daal jaamam la wax rek qaala rajulaani min alladina yaxaafuuna anama allahu alayhima ñi nee nañ diw la ñi nee nañ diw la mm-hmm. waaye bu doon farata yàlla tudd ko xadis mm-hmm. ji xadis mm-hmm. ju gàtt la waaye njëriñam ëpp na yonentu sallallahu alayhi wa sallam nag baat bi mu jëfandikoo wala baat yim jëfandikoo ndax laa xarfu nahyi la mm-hmm. laa taxdab mm-hmm. nëbb na damir mm-hmm. damir ja mooy anta kon ay baat la bokk wala benn baat la ci soo bëggee gàttal ndax yonent bi lim namm ci moom mooy bu mer tàbbi ci yow wala bul topp mer mën fexe ba mer tàbbiwut moom duut ne jamono bu ne nga koy mën waaye bu mer dikkee nga téye ko ba du la def looloo warta def loolu ku ne mën na ko bu fekkee def ko wane ko bu mer tàbbi ci yow mu ngi koy moytuloo situation yoo xam ne ku ca dugg mer mën na la caa fekk xam nga kuy xuloo boo moytuwul ñu wax la lu la naqadi nga mer ku dugg ci lu yoonam newut mm. boo moytuwul ñu def ko ci lu ko naxadi mu mer mm-hmm. waaye nit mën naa bañ a def yooyu nit fekk la fenn dóor la mbaa tooñ la mm-hmm. bu mer moo ma dikkee it mm. bul tax bul bàyyi mer ma def loola loo warta def mm-hmm. kon mën nañ cee déggee bul def luy tax mm. am mer ju dóor ca mën nañ caa déggee it bul topp sa mer boobu nag moo gën a jamtalu hmm. wala ñaar yépp sax hmm. mën nañ cee dugg hmm. ndax mer mbir mu naturel la waaye ya indi nag mën nga ko nga caa moytu yu bari mer mbir mu naturel la waaye li mën nga ko moytu mën nga caa moytu bokk na ci njëriñu xadis ji mm. wala yiñ ciy jàngee mm. xër gi saxaaba yi xëroon ci mbaax mm-hmm. ak lu leen di jëriñ mm-hmm. mm-hmm. da koy déggee ci waxi waa ji yow yonantu ma mm. bëgg na lu ko jëriñ te xam na ni njëriñ a ngi ci yonantu sallallahu alayhi wa wa kulluhum min rasulillahi multamisun xarfan min albahri aw rashfan min addiyami lii wuteeleeg lii ñu wuteeleeg saxaaba yi ñoom mm-hmm. ridwanullahi alayhim mm-hmm. ñoom suñ xamut fa ñuy laaj mm-hmm. waaye buñ laajee ba xamit duñ ca yam dañuy jëfandikoo bari ci ñun ñu xamuta duñ laaj bari na ci ñun ñuy laaj pour xam rek waaye fa suñ yéenee jëfandikoo liñ xam saxaaba yi nag atte buñ xam fas nañ yéene jëfandikoo ko mm-hmm. bal danañ ko jëfandikoo mm-hmm. mm-hmm. maanaa jàngoro juñ xamee danañ dem ci docteur ba kii yonantu sallallahu alayhi wa bu leen bindalee ordonnance gannaaw bu mu càmbaree jàngoro ji danañ jë jënd ordonnance ba naan ko waaw ñoom noonu lañ meloon ñun nag dañ danañ feebar naa am duñ dem ci docteur bu ñu docteur waxee lii moo ñuy faj mën naa am duñ ko jënd mhm. mooy ci maa ngi ci jublu suñ mbiru diine mhm. bëri na luñ xamut mhm. buñ ko xamee ah, dañu koy boole ci yi ñu xam rek bu waxtaan dikkee ñuy wane ne xam nañ waaye bu jëf dikkee daanaka duñ ca gis suñ bopp bokk na ci ci ñuy jàngee ci xadis ji mooy kii ngay waxal mm. walla ki ngay jàngal mm. nga jàngal ko lu dëppook xaalam mm-hmm. wala nga jàngale ko nu dëppook xaalam mm-hmm. ngir loola la soxla ci jamono jooja mm-hmm. wala noonee dëppook xaalam mooy tax mu dégg sama boroom xam nga bam ñuy dénk ci alquran wax nañu ne dénk nañu mm. lim dénkoon ñi jiitu mooy ragal yàlla mu lu tax yonent bi ko waaji ne dénk moo waxut ko ne ko ragalal yàlla mm. yàlla wax na ne walaqad wassayna alladina utul kitaaba min qablikum wa iyaakum mm-hmm. an ittaqullah mm-hmm. te bañ mer ak bañ a sa mer mm. ci ragal yàlla la bopp mm-hmm. waaye yonent dafa xam sallallahu alayhi wa li waaji soxla woon ca jamono jooju mën na am waaji merkat la woon mu xam ne kii lim soxla mooy ñu dindi mer ci mm-hmm. moom mm-hmm. du noonu man mm-hmm. naam waa ji merkat la woon moo tax da nga gis ci hadis yu bari nit ñëw ne yonantu lu gën ci jëf yi mu wax ko kii mu ne ko jihaad kale mu ne ko julli ci njëlbeenu waxtu kale mu ne ko nangam ku nekk ca ñoom xëy na jamono jooje loolu nga soxla woon am na koo xam ne xay na daanul julli ci waxtu mm-hmm. wala dafa soxla tàggatu mm-hmm. ci wàllu julli mu ne ko julli ci njëlbenn waxtu mm-hmm. xëy na am na koo xam ne baqar la kooku jihaad fi sabilillah ci moom waaye dana ñëw ne la dénk ma xam nga ne kii mbiram yépp mooy eh, ànd ñoo xam ne ni duun ñu baax li ko war a dénk mooy maa ngi lay dénk nga mhm. euh, wut àndandoo yu baax mhm. te bàyyi sa àndandoo yu bon yi mhm. ndax kooku loo ko mën a wax fekk tàqali ko wut ak ñooñu du ko jëriñoo keneen ñëw ne la dénk ma te yow xam nga ne moom ku sàgganee njabootam la nga indil ko al aaya ak xadis yi wax ci rafetal jëm ci njaboot moo xam soxna la moo xam doom la loolu mooy muqtadal xaal mm. ki ngay dénk dénk ko kémtalaayu mm. soxlaam mm-hmm. moo tax kii ñëw ne yonantu dénk ma mm. mu ne ko laa tax dabbul mer mm-hmm. dénkaan li nag yemul ci moom mm-hmm. ci ñun ñëpp a ko bokk waaye xëy kooka loolu la soxla woon ci jamono joojee mu dénk ko ko waaye nag alxukmu bi umumi lafzi laa bi xusuusi sababi waaw atte mm-hmm. dafay yóbbaale lépp lu baat ba làmb mm-hmm. waaye du yem rek ci sababu la taxoon ñu wax ko mm-hmm. léeg nga dégg ñu ne laaya ji li mooy sababu nuzoolam waaye sababu nuzoolam yemut ca nag ndax bu doon loolee sababu nuzoolam la aaya ji dootu ñu jë bu doon loo rek la yem dootu ca yem dootu ñu jëriñun laa taxdab ndax mer hmm. yàqu yàqu yu bari def caa jóge hmm. su fekkee nit ki topp na meram hmm. wolof nee na ku mer ba kontaan bu mer ma jeexee nga réccu ndax mer moom li lay kontaan loo rek mooy nga def lu metti mbaa lu naqadi ki merloo ku mer ba kontaan bu mer ma jeexee nga réccu léeg-léeg nit mer hmm. daal dina man dootuma waxateeg diw mukk hmm. nangam ak nangam hmm. waaw yooyu yëpp fekk mer ma rek moo tax boo meree nga war a jéem a fexe ba bañ a topp sa mer léegi ki mer nag am na ay saafara yi ko yonantu jox saafara yoo xam ne yii baat la ak saafara yoo xam ne ay jëf la mm-hmm. saafara ay baat mm. saa yoo yëgee ne mer nga mm. nga ne audu billahi min ashaytaani arrajim ndax mm-hmm. yonentu sallallahu alayhi wa sallam gis na waaju mer mer mu tat mm. mu ne inni aalamu kalimatan law qaalaha la dahaba anhu ma yajid mm-hmm. ay yaani algadab law qaala audu billahi min ashaytaani arrajim xam naa baat boo hmm. xam ne su ko waxoon hmm. li ne ci moom ci mer dëñ hmm, mooy audu billahi min alcheytaani rajim xadis jëng ci buxaari ci buntab badul xalqi ci baabu sifati iblisa wa junuudihi loolu mooy saafaraay baat audu billahi min alcheytaani rajim saafaraay jëf nag mooy nga désactiver sa bopp bu fekkee mer maa la fekkoon nga taxaw nga toog ndax ki taxaw moo gën a gaaw a dóor ki toog su fekkee nga toog nga tëdd ndax soppeeku euh, xaal ci biti dana waral soppeeku xaal ci biir boo fekkee ne loolu jëriñut nga dem jàpp ndax jàpp hmm. dana la fàtteloo sa mer hmm. jàpp ndox a koy def hmm. te mer safaraay safara la ki mer da ngay gis mu ngi mu ngi tàng te ndox nag fu fekk safara fay ko ndox fu fekk safara fay ko soo defee boo jàppee dana tax nga fàtte mer mi dana fay mer mi yii ay saafaraay jëf la mm-hmm. su fekkee ne yi jëriñ na te du ñàkka jëriñ mm-hmm. nga def ko mm-hmm. walla sax euh, def nga leen kooka continuer di def ay defam yoo xam ne mën naa indi leneen nga génn nga jo nga nga nga génn waaw bëri na ñoo xam ne suñ mer dañuy génn kër gi waaw yaa ngi ci bërëb boo xam ne ni mm. gis nga ne boo fa jékkee mm. mer mi mën na laa def loo warta def nga dem mm. nga dem mm-hmm. ñu ngi jàngee ci hadis ji ne diine dafay tere lépp lu ñaaw mm-hmm. ci jikko mm-hmm. laa taxdab bul mer ndax mer dana tax nit ki def loo xam ne lu ñaaw la jëf-jëf yoo xam ne yi dafay tax mer dëkk mer dikk mm-hmm. loolu mën nañ koo tuddee woy ñaawi jikko mm-hmm. saa yu la lislaam tere lu ñaaw nag mm-hmm. lëm loola ëmb na digale mbaax bu ko defee mi ngi lay jàngal kon nga miinal sa bopp euh, jëllale ak jéggale ak yenu loru nit ñi ak bañ mer yonentu sallallahu alayhi wa jàng nañ ci xadis ne dana dox mook ay saxaabaam benn kaw-kaw ñëw doxee ko gannaaw daal di bipp làmbaayam gi ba ñu gis euh, dox yonentu gi sallallahu alayhi wa ju tedd ja ma nga xonq di dere mel ni luy deretal noonu ndax yonentu dafa mer xam nga kuñ ko defoon ci ñun li gën a tuuti ci li ngay def mooy mer mm-hmm. Mm-hmm. waaye kilifa gu toll ni yonantu mm-hmm. sallallahu alayhi wa sallam nekk ci biiri saxaabaam benn doxandeyam jógee fële rek bipp ko ne ko yow Muhammad jox ma ci alal yàlla ji ne ci sa loxo lan la yonantu dafa gestu daal di muuñ reetaan sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam loolu mi ñuy jàngal taxamul Mm-hmm. ñuy jàngal alsafx mm-hmm. ñuy jàngal alafu mm-hmm. addabani rabbi fa ahsana taadibi sama borom mooma yar rafetal sama yar alaaji ibrahima ñees mu ne addabahu bi xudi alafwa wa amur bil urfi wa arid anil jahilin ñetti baat yi la ko yare xudi alafwa jàppal mba afu moo gën a foor xufru mm-hmm. wala xufraan mm-hmm. wala maxfira mm-hmm. uh, moom baal nañ la waaye dañoo bàkkaar baa ngi mel ni dañ ko muur kenn xoolatut ko waaye afu moom dañ ko effacé allahuma innaka afuwun tuhibbul afwa yonentu ne mooy ñaan gi gën ci uh, bésu la guddig wa amur bil urfi nga digle mbaax hmm. wa arid ta nga dumoyu hmm. anil jahilina way réeri hmm. am nañ waxtu ba nar a jot waaw ah, kay nañ jël ñaareel xadis alxadisu sabia achar fukkeel xadisu fukkeel ak juróom-ñaar mu ne an abi yacla mm. jëlee nañ ci suñu sanga aboo yacla mm. dàkkantal la mm-hmm. turam mooy shaddaad mm. bin aws mm-hmm. sayidna shaddaad doomi aws radiallahu taala anhu mm-hmm. na yàlla gërëm ko an rasulillahi mu jëlee ci sayidna rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam qaala mu ne mm. inna allaha dëgg-dëgg mm. yàlla mm. kataba bind na farataal na lixsaana rafetal ala kulli cheyin ci lépp lëf mm-hmm. Mm-hmm. fa ida qataltum su ngeen na meeray fa ahsinu na ngeen rafetal alqitlata rayin wa mhm. hayatu la mhm. wa ida dabaxtum mhm. su ngeen namee rendi fa ahsinu na ngeen rafetal aldibxata rendihin wa waliyuxidda nan namm ahadukum kenn ci yéen chafratahu gobaram waliyurix nan noppal mm. zabihatahu gàtt ba muy rendi mm-hmm. mm-hmm. rawahu muslim mm-hmm. mu ne yàlla bind na lixsaan waral na ko ci lépp lu jullit bi di def ci dundam gépp mm-hmm. nag mm-hmm. mu joxe misaal mm-hmm. ci kuy rey nga xam ne mooy li gën a euh, sévère ci li ñuy def mu ne xataa ci jamono rey sax dañoo war a rafetal kuñ digal nag boo demee bay reyu gàtt sax nga rafetal ko wala boo demee ba koo xam ne sax dafa reyoon nit ñu war koo rey sax reyin wa ñu war koo rafetal kuñ digle rafetal ci ray wax ak jëf jumoo jumu taxut ñuy wax yàlla waxoon na ci alquran wa qulu linnaasi xusnan digal la paaka bi nga reyee sa nga namm ko ba mu ñaw ba nga xam ne boo dee rendi du yéex digal lay nga noppal ka ngay rendi mooy nga gaawal rendi ga xadis la joo xam ne bari na njëriñ njëriñ li ñuy njëkk a jàngee ci xadis ji mooy rafatullahi taala bil ibaad yàlla ñeewante gim am ci jaamam yi ba tax mu farataal rafetal ci bépp xanam ci lépp lu ñuy def mm-hmm. rafetal nag mm-hmm. bari na mm-hmm. ki ngay wan yoon nga ñe ci wanin wa mooy ki ngay jàngal mbaa ki ngay yar kooku rafetal nga nga rafetal ca farata joxe ñam rafetal la digle mbaax rafetal la tere mbon rafetal la li yonantu sallallahu alayhi wa tudd ci rey ak ci rendi mm-hmm. ay misaal la mm-hmm. waaye misaal yu kawe mm-hmm. ndax rey ak rendi ki koy def moo gën a ni ku soxor waaye kooku sax ñu digal kooku rafet mu ne na na ca rafetal xam ne bàyyi ma bi muy reykat yàlla ko tàggat rek moo mënoon naa nekk bàyyi ma bi bàyyi bi yàlla tàggat tàggat ñu ñeyal ko waaw mm-hmm. yàlla nee na mm. moo ñu bindal li ci asamaan ak suuf mm. moo li ci mm. asamaan ak mm-hmm. wa saxara lakum maa fi samawaati wa maa fi lardi jamian min du noonu mm-hmm. eh, xam nga lixsaan wax ne yàlla bind na ko ci lumoo lumu hmm. ban gan bind la hmm. kataba la wax hmm. kataba dana firi waral dana wara dana firi dogal dafa am kitaaba qadariya ak kitaaba sharciya li yàlla dogal ci wàllu lu yàlla def kitaaba qadariya mooy li nga xam ne daf koo dogal loolu mënta ñàkk kitaaba shariya nag daf koo waral hmm. nit mën na koo taxawee ko mën na koo baña a hmm. yàlla wax na ne hmm. walaqad katabna fi zabuuri min bacdi dikri an arda yarisuha ibadiya saalihun mën nañ caa déggee ne dogal na ko ba noppi ñu ne kon loolu misaal la ci kitaaba qadariya bu ne kutiba alaykum alqitaalu wa huwa kurhun lakum farataal ci nañ leen ci yéen lañ wax xeex même bu dee neexut leen waaye mën naa am ngeen si dara fekk moo gën looluy kitaaba shariya kon kataba fii noonu lañ koy déggee farataal na la ndax bu doon kitaaba qadariya kon booba kataba gi dafay dellu ci yàlla moom mm-hmm. ah, ndax yàlla moom mm-hmm. wax na ne kataba rabbukum ala nafsihi mm-hmm. rahma yàlla dogal na ci boppam ak yërmande moom kon rafetalam kenn werante wut ko subhanahu wa taala wa huwa albarru rahim inna allaha kataba al ihsana ala kulli shay hmm. xadis ji ñu ngi ciy jàngee it rafetug jàngaleem yonantu sallallahu alayhi wa sallam hmm. ndax dañuy wax ne bil bil mithaal yattadixu lmaqaal hmm. joxe mithaal dafay leeral dafay yombal dafay tax li nga bëgg a wax neex a dégg moo tax bam ne inna allaha kataba al ixsaana ala kulli shay mu joxe mithaal ngir jegeel maanaay ne hmm. bu ngeen bëggee rey hmm. reyee hmm. rendi na rendi wi rafet xam nga rendi ak rendi win du benn boo rendi baat bi mën naa waaye rendi win wi mooy xitalatu hayatu la eh, mooy zibxatu reyin wi mooy xitalatu Mm-hmm. rafetal rendi nag mm-hmm. doxut lu dut topp sharia rek mm-hmm. doxut lu dut topp sharia rek su fekkee topp sharia la rek la mm. dana tontu kiy wax ne waaw yàlla ne nañ rafetal mm. léegi ki nga xam ne nag moom rey na ñu war koo rey wala njaalo na ñu war koo jam loolu rafet na mm-hmm. ñu ne rafet na kay ndax yàlla lu mu rek rafet na mm-hmm. Mm-hmm. te dafay tax mm. loola dootul xamati ndax kum leer ne lii bu ma ko defee mm. ñu ray ma mm. dootul dootul def loola arab dañ daan wax ne al qatlu adhabu lil qatli raya gën a al al qatlu anfa lil qatl Hmm. rey a gën a mën a dàq rey hmm. waaye yàlla moom waxinam sax moo gën a rafet hmm. daf ne walakum fil qisaasi xayaatun am ngeen ci fayu dund moom moom mu ngoog moo bind éloquence moo du ko du dàqante kenn kon nag rendi nañ ko defee na ko sharia waxee rey ñu defee ko na ko sharia waxee loolooy rafetal li ko sharia waxee mooy ahliyatu kii mm-hmm. rendi mm-hmm. na ahliyatu mm-hmm. mooy na jullit ba muy kitaabiyu moo xam nasaraan la wala yahudi bu ñu rendee mën nañoo yekk seen rend moo tax àlla ne wa taamu wa taamu alladina utul kitaaba lakum wa taamukum xillun lahum waaye suñ rendi wut nag lekk dafay nekk mit mm-hmm. moo tax lekk yu bari yi ñu yu McDonald ak et cetera mm-hmm. ab jullit waru jënd mm-hmm. ndax rendiwuñu ñi nga xam ne nag dañuy rendi mooy ñi ngi tuddee suñ mbokk yahud yi ne fii rendi la rendi am na marque bu ñu koy tuddee kosher bu dee jullit yuy rendi dañuy rendi ñu koy tuddee xalaal hmm? moo tax xalaal mit mooy jàpp wuñ rendi euh, kosher mooy yàpp woo xam ne dañ ko rendi te yahud ya ko rendi mm-hmm. yëpp mën nañ leen a lekk mm-hmm. waaye léeg-léeg nga gis ñu naan la ah yàlla neen wa taamu lasina wasal kitaaba xillun lakum mm-hmm. lekk deet seen lekk yi mu wax mooy yeñ rendi waaye jullit bi bu la leeree ne xar mi medd mu toggal la yàpp jullit la di te du dagan ci ah? kon wa taamu lasina wasal kitaaba seen yàpp yeñ rendee tax muy wax ñaareel ba la ñuy rendee it mu nekk loo xam ne lu dagana rendee la ana mooy lu dagana rendee yonent tudd na ko nee na ma anhara dama wa dhukira smullahi lépp loo xam ne dexloo na deret mooy tuur yolloo na deret te ñu tudd ci yàlla lekkal moo xam paaka la boo hmm. xam ne ni eh, daggee nañ ko hmm. wala aw doj la wu am ñaw ka hmm. wala weñ gu am weñ gu ñaw gumoo gumu nga rendee ko rek yonentu sallallahu alayhi wa sallam nee na mën nañ koo lekk ndegam tudd nañ ca yàlla kon kii rendi na nekk ku war a rendi muy jullit mbaa muy kitaabiyu mm-hmm. su fekkoon ni ab ate la mm-hmm. wala jaamukatu xërëm moo rendi mm-hmm. bu waxee bisimilah yeeg lépp rendi nga baaxut ndax gëmut yàlla ndax gëmut yàlla ah. su fekkee nag tudduñ ku ki rendi tuddul yàlla ngir def koo fàtte kooka wuute nañ ci ndax wala taakuloo mimma lam yudkar ismullahi alay mhm. ñaari maanaa lañ ci mën a déggee mhm. mooy loo xam ne bañ koy rendi waxuñ bisimilahi mhm. wala dañ caa tudd weneen tuur wudut yàlla looloo indi wutee gi wala taakuloo mimma lam yudkar ismullahi alay wa innahu la fisqun wa inna alchayatina la yuxuuna ila awliyaihim li yu jaadiluukum mm-hmm. danañ jàngee ci xadis ji mm-hmm. waruk ñawal ñawal gobar mm-hmm. Ah, moo xam paaka la wala jaasi ji ngay rendee lu tax ndax loolu mooy tax rendi ga gën a yomb mooy tax rendi ga gën a yomb waaye léegi bu fekkee dañ ñoo wax ñu ñawal suñ paaka ñu nàmm ko ndax mën nañ ko namm ci kanam xar mi ñu rendi déedéet mm-hmm. ndax loolu daf koy tiital mm-hmm. te yonentu sallallahu alayhi wa sallam daf ko tere mm-hmm. amara an tuhadda shifa wa an tuwaara anil bahaim nee na nañu namm paaka yi gobar te buñ ko def ci kanam bahaima yi buñ ko def gis nga yërmande sharia gis nga yërmande yonent ma arsalnaaka illa rahmatan lil léeg-léeg nga gis nit def ko hmm. tax mu agité loo nag wi mbaa xar mi hmm. Hmm. ba mu fippu mbaa mu daw mu gën a mu indi jafe-jafe te budul jafe-jafe yi lor ga nga koy lor ci gis gi mu koy gis dana yàggal rey gi ndax yaa ngi koy tiital gannaaw na ko nàmm it mu ne nañu noppal li ñuy rey nuñ koy noppalee mooy gaawal rendi mm-hmm. li annahu aryaxu laha mm-hmm. bul tee ba teg paaka bi ci baat bi di def leneen lu dul ak rendi mm-hmm. booy rendi it nanga ko gaawal technique yi nga xam ne ñoom la ñuy defit ci téye tànk yeeg niñ koy ñàddeeg yooyu yëpp ñu defee ko noo xam ne dana tax ba du fippu rendi ka di yàqu dana taxit ba yëf yi dana gën a mën a neex a rendi mm-hmm. gën gaaw a rendi mm-hmm. looloy noppal mm-hmm. uh, la rendi kon daal rafetal yonentu wax na ne yàlla digal na ko ci lépp joxe gim joxe ci yii uh, misaal mooy misaal ya gën a extrême rek waaye kii rafetal hmm. kii yar hmm. euh, nga xam ne ñi mu yar mi ngi nekkat ñoom jamono ju ne hmm. kooku na xam ne moom la lii sax gën a concerné moo tax bu dee njaboot la bu dee doom mbaa soxna yonentu sallallahu alayhi bu ca nekk wax na nañ leen war a yare demoon ba dóor mënta ñàkk sax mu ne na nekk borban xayra mubarrih mu mm-hmm. nekk dóor buy gaañ mm-hmm. moo tax mm-hmm. boroom xam-xam yi ci buntu jinaayaat yi ñu ne bu fekkoon ne nit dafa dóor doomam dóor bu exagéré ba tax doom ja dee nee nañ dafay warlu loolu xam nga dañuy wax ne duñu rey euh, bàyyi ndax rey doom waaye su fekkee ne bàyyi hmm. dafa jéggi na mu waroon a yaree doomam hmm. di ko yar ak violence hmm. doom ja dee daf koy warlu koy lu tax ndax li ko yonantu wax ne ko inna allaha kataba al ihsana ala kulli cheyin ay fi kulli chey daf ko jéggi ku jéggi ndigalal yàlla ku yonantam nag ah, loo def yaa koy warlu mm-hmm. inna allaha yàlla kataba bind na mm-hmm. kataba waral na lixsaan rafetal ala kulli shay ci lu ne mm-hmm. fa ida qataltum su ngeen nammee rey fa axsinul qitla na ngeen rafetal rey mi wa ida dabaxtum su ngeen namee rendi fa axsinu dibxata na ngeen rafetal rendi hini wal yuxidda axadaku axadukum la axadukum moom axadakum la def wal yuxidda axadukum shafratahu ki nama rendi ci yéen na ñawal na namm goboram wal yurix dabixatahu tam ren tam noppal lam nara rendi rawaahu muslim ala wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaarihil aziim alhamdulillah baarakallahu lak leer na alhamdulillah